te ak fête ji di ñëw nii fête ji ñu nekk nii bëgg a dugg si férié nii fin d'année bi xale yi lu ñu gis dañ koy jënd te lii boo saaganul mu ngi si yeneen boutique yi vigilance nag parce que lii moom doy na waar parce que am na xale boo xam ne sax naan na jënd na si naan nag xale baa ngi nii tëdd di nelaw xaw ma affaire bee ko jàpp xaw ma mais affaire bi moom lii moom danger la waaw te daawul nawal nelaw heure bi mu ngi nii tëdd dama leen koy war rek ngeen gis mu ngi nii tëdd maa

parce que ñun ci suñuy aada ni mu bindoo ci biir penc mi par exemple ñun suñu jamono penc mi mooy média yi penc mi mooy assemblée penc mi mooy internet bi nga xamante nii képp ku am lu la métti ci biir réew mi boo amul bar wu gudd lool mën ngi fi publier ñëpp partagé ko mu daal di wër àdduna léegi xeetu penc yooyu nga xamante nii moo remplacé taatu garab yañ daan toog jamonoy maam di ci nasakoon ci di xool anam gi ñuy doxalee dëkk bi xale yi amuñ baat ci penc yooyu noonu te loolu c'est très parce que comme ni ñu ko waxee sànq ci suñu ada xalé dafa wara am fu wara yam bu ay mag sax di waxtan dafa wara nopi noppi nak problème bi moy xalé yi dañ leen lo ba paré mais protéger wuñ leen tay lolu mo nek di xew actuellement Sénégal parce que li ñu ces derniers jours ces derniers mois moy nek xalé léegi Sénégal danger la waratul xale yi dañ leen exposé ba seen avenir bu ci suñu borom jàppul lool mën nañ titi suñu ëllëgu réew yëg ngeen ni fan yi dugal nañ Sénégal ay foyé ka yo xamanteni sàngara moo ne ci biir bu fekkoon c'est la première fois sax ñu mëna comprendre mais c'est la deuxième fois ñu gis phénomène yu ñu mel lu yàggul yeneen kay la yo xamante dañ ci wone ñaari doomi aadama yoo xamante nii ñoo bokk ben awra ñuy fóonante té bu fekkee ne ab mbir dafa am ci ben réew amat surtout ci diir bu gatt tayef lay ndiru lolu lépp dañ ci ñëw parce qu'on a l'impression que ni gaay yi dem nañ ba xam ñun suñu génération rëcc nañ leen maanaam mënatuñ ci ñun dara ndax amna yo yoo mënuñ ko duggal suñu bop formaté ñu ñu nak légui nañ ko tambalé ci tout temps yi comme que wolof nee na garab ca ba muy tooy lañ koy jubbanti ñu daal nag ne nañu orienté combat bi ci xale yi ngir ëllëg ñu am génération boo xamante nii du ñu am ay valeur ay sulaar la ñuy doon ñoo xam ni dañuy sax soofantal yéen di jëf yu bon ci mel ni mbiru góor jigéen ak yu ni mel loolu lépp daan ci nday leeral ci biir vidéo bi beneen cas aussi di xale bu ñu naan Bébé Rassoul moom benn ndaw soo xamante nii amul sax permis de moo ko percuté mu ñàkk bakkanam ci saasi yi mais moment bi ñuy def vidéo bi nii ki def loolu noonu mi ngi dox ci soxlaam ci biir réew mi daañ ci ñëw aussi ak mbir yi nu mu demee parce que cas bu garaaw la boo xamante ni bu amoon ci réew yu sérieux waxuma kii fiir xale bi mais même borom oto bi nga xamante ni moo ko jox ba mu lor doomu jàmbur dañ koy teg ay sanctions yu métti lu yàggul aussi ñu gis benn xale bu toll ci neuf mois ñàkk bakkanam ci benn crèche ba ay waajuram porte plainte ñu leen di masawu bu baax ndax métti na ci koo xam ni doom saxee ci xol loolu aussi interpellé ñu ci structure yi nga xamante ni ñu ngi judd suñu réew te amul préparation bi ci war parce que ñun suñu askan mu ngi jëm ci benn changement boo xamante nii di soppi xaar kanam te rendruñ ci sax compte tey phénomène crèche yi yàggul ki démb la mais est suñu nguur encadré na ko ba du n'importe qui mooy jóg ubbi crèche ba crèche yooyu noonu ni muy doxee état da ci teg bët ba mu dëpp ak suñuy aada ak suñu cosaan lii ay question la yu am solo yoo xamante nii war nañ ciy réfléchir dès à présent balaa mbir yi di ëppi loxo ndax bu ñu sàgganee dañ koy bamtuwaat bu ñu sàgganee ba suñu tuut tànk yi dëgg la tey ñoo ngi jooy mais ëllëg loxo dina gën a dar gémmiñ ndax préparé wuñu ñi nga xamante nii ñoo war a gérer suñu avenir réew dañ koy tàmbalee bi nga xamante nii doy na waar trop muy ay foweekaay yi ñu dugal ci biir réew mi mais ndekete ci biir foweekaay yooyu noonu dafa am liquide boo xamante nii sàngara moo ci nekk ay doomam nag ñoom ñoo ko jënd daf leen fekkoon ñu jënd ko mu ñëw fekk leen laaj leen lii lan la ñu ne ko ci bitig bi moo koy jaay léegi affaire boo ko ibbee boo fóonee affaire bi sàngara dafa mel ni sàngara moo si ne dafa mel ni genre sangara moom lay la xeet gi di feeñ même Imam Sarr bu jaree man ma indi la échantillon yi nga gis ko ma indi ko sa kër nga xool boo fóonee day affaire bi sàngara xeetu sàngara lay jox te lii danger la te ak feet ji bi ñëw nii fête gi ñu nekk nii bëgg a dugg si férié nii fin d'année bi xale yi lu ñu gis dañ koy jënd te lii boo saaganul mu ngi si yeneen boutique yi vigilance nag parce que lii moom doy na waar parce que am na xale boo xam ne sax naan na jënd na si naan xale baa ngi nii tëdd di nelaw xaw ma affaire bee ko jàpp xaw ma mais affaire bi mom li mom danger la wa ta dawul nawal nalaw heure bi mu ngi ni teud dama len fay war rek ngeen gis mu ngi ni teud mu ngi di nalaw ta li li mom benen affaire la te amna ci yenen xalé yo xamna xam ne tam naan nañ ci ñu ngi ni di ki xam nga rek moy lolu buñ mënee jël nak suñuy suñuy devant ñu jël suñuy devant te yalla tax li mom danger la après ma da jël échantillon yi Imam sar bu laaje mo andi ko sa keur mo andi ko ngeen xol bu baax xam ngeen fon li ci ne comme xeetu sangara léegi gannaaw ba li amee Oumar Diallo di directeur du commerce intérieur maanaam mooy ceetu lépp lu jëm ci njaag jënd ci biir réew mi mu daal di saisir produit yooyu noonu ngir ñu def ci ay test mais ba ñu defee test yi ba noppi ci laboratoire ndekete liquide boobu noonu nga xamante ni ay xale naan nañ ko yaakaaroon ni boisson sucrée la niveau alcool bi mi ngi toll ci 6 degré daanaka sorewul ak vin rouge ndax boo jëlee xeetu sàngara boobu noonu muy vin rouge niveau alcool bi day dem ba 8 degré alors que xale yi naan 6 degré la kon sorewuñu mais li ci gëna graw moy mooy liquide yi xale yi naan foogoon ni ab boisson la amul différence ak yi solaar yi di naan ci bar yi li dafa graw bu xewoon ci yeneen dëkk yi nga xamanteni dañuy protéger ak ak yelefu xalé yi ministre du commerce ci même jour bi lay démissionné mais non seulement ministre bi démissionné wul mais dañoo dem japp benn commerçant bo xamanteni nii da ko doon jaay en détail alors que commerçant bobu nonu yu li xew mom dafa gis ñuy jaay ay yu xalé mu dal di koy jënd di ko jaayat mom xamul li xew suñuy autorité ñoo faillir à leur mission ndax Sénégal du yoon la boo xamante nii dafa am charte yu tënk mbiru commerce maanaam du n'importe qui moo am droit dugal fi ay produits rawatina lu ñuy lekk benn boo fi dugal produit boo xamante ni dañ koy consommer da nga war a am d'abord lu ñuy wooyee déclaration d'importation de produits alimentaires ñu naan ko DIPA. deuxième étape bi mooy même bu produit bi yegsee Sénégal non seulement di nga fay douane, mais aussi dinañ vérifier ndax produit bi ci boppam jaar na yoonam déet. mboolem produit bu ñuy importer Sénégal te doomi aadama di ko jëfandikoo di ko dugal ci biiram dañ koy vérifier d'abord avant ñu koy teg ci marché bi parce que bëgguñ mu lor sénégalais nga xamante nii ñoo koy consommer yemuñ ci même bu ñu tàmbalee jaay produit bi ministère du commerce am na ay agent yoo xamante nii ñooy wër ci marché ak yeneen bërëb di vérifier léegi naka la ñu mën a amee jumtukaay yooyu yépp di génne ci xaalisu Sénégal suñu koppar di ci fay ay doomi aadama ngir ñu ñuy xoolal li ñuy dugal suñu réew ngir ñu ñuy càttu li ñuy dugal suñu biir ba noppi ñu sàggan ba ñuy jaay suñuy doom ay sàngara moo tax ba liy amee ki ñu dénk njaay ak jënd ci biir réew mi muy Aminata Assome jata, dafa waroon démissionné omar Diallo bi nga xam ne mooy directeur du commerce intérieur moom itam dafa waroon présenter lettre de démission am parce que dañoo wane ni mënuñ commerçant bi nga xamante ni jàpp nañ ko ci mbir yi kooku dañ ko war a libéré parce que ni xale yi ñàkkee xam ni foyukaay yi sàngara moo ci nekkoon bañ koy naan noonu la moom itam commerçant bi ñàkkee xam liquide bu nekk ci biir ndax yorul laboratoire ngir di mën a vérifier kon waru nek ko xamanteni moy nek lañu du sacrifice ñi ñu wara a ci mbir yi xam nañ leen moy ki fi duggal produit yi ci biir réew mi ak autorité yi nga xamanteni ñoo leen may ñu duggal ko ci biir réew mi dal di koy tass ci marché bi buñ ci noppee ñu ñëw ci benen tout tank bo xamanteni mom aussi victime système bi la parce que néna leen Sénégal légui nek fi xalé warutul xalé bi mi ngi tuddu bébé rasoul nonu lañ ko daan woowee daanaka benn weer kessé mo déssone mom ñaar bésu mercredi 11 novembre 2020 bi ñu weesu moom ak yeneen xale yi mu bokkal benn kër ñoo toog seen buntu kër di fo am benn ndaw suñu naan Khadija jaw dañuy tudd seen tur parce que lii scandale la boo xamante ni dañ leen war a weer ñëpp xam ko yoon def liggéeyam moom Khadija Diaw ànd ak beneen xaritam buñ naan Fatoumata jaari borom oto bi rey bébé Rasoul mais ci jour boobu noonu Khadija Diaw la Fatoumata Diary bàyyi mu dawal oto bi alors que xam na ni amul permis de conduire yow amoo permis de naan da ngay dawal léegi ci la nekkee au volant ba mbëkk bébé rasoul ci sen buntu kër. man maa ngi taxawoon ci couloir wu kër gi à côté di leen xool. Mhm. à un moment donné man maa ngi xool oto bi bizarrement ki nekkoon ci auto bi xaw ma kan xaw ma woon góor la xaw ma woon jigéen mhm. mais amoon benen xalé xale bu jigéen bi doon wax ak ki doon dawal. bi doon wax ak ki doon dawal. donc sama voix bi dafa demoon. Mhm. ngi def ni xalé yi. دوم دوم كيمي وقتانك سواء بنين دوم سربي بريس كما أتبي دي أنا ريح أنا ريح بين أريح وخمة تنوان أو مسخ أتماتيك موجهة دالتي بيبي غسو نون بمبينك mo indi waa dëkk biya parce que xale bi si la ko la gaañ parce que dafa yàq xale bi carrément. ñoo ko déggandoo mom bàjjen la ci bébé Rasoul mais li graw ci affaire bi moy ki fir xalé bi di Khadija Diaw ak borom auto bi di wuyoo ci turu mata Diary bañ leen yóbbee ci yoon 45 jours kese la leen tëj weer ak fukki fan ak juróom kott alors que buñu démé ci loi wu Sénégal parce que ñun tamit biñuy ñuy vidéo bi dem nañ xool lan la yoon wax ci dawal té amo permis mais buñu démé ci suñu loi dañ né képp kuy dawal auto té amo permis de conduire bu valable c'est-à-dire que même bu fekkone amone nga permis té mëna dawal sa permis expiré ngay dawal auto waxuma la nga jël bakkanu doomi aadama déedéet mais di dawal oto rek te amoo permis de conduire yoon dafa ne dañ la tëj 6 mois jàpp ñaari atu kaso teg ci amande jàpp 500000 lii la yoonu Sénégal wax ci kuy dawal te yoroo permis waxuñ nga rey nit déedéet mais ngay dawal te yoroo permis loi bi dolli ci ne même peine boobu la ñuy teg ki jël otoom jox ko keneen koo xamante ni amul permis de conduire mais li ñaaw ci kaw bi bi rasul mooy non seulement ki doon dawal amul permis de conduire mais daf ci boole rey doomi aadama moom ñaari infraction la def. kon dañ ko war a daan ci dawal te amoo kayit daan ko itam ci rey ab doomi aadama ci Taïf mais ñaari peine yëpp tudd ci benn un mois quinze jours lañ leen tëj ñun ausse demande ci ban réew la ñu nekk. beneen cas bi ñu ko jeexalee mooy ab tuut tànk bu toll ci neuf mois bu génn àdduna ci benn crèche bërëb boo xamante ni même bu xale bi amee ñaari weer sax mën nga ko faa yóbbu ngir ñu téyel la ko bu dee ni da ngay liggéey yëf yi nag mi ngi xew ci benn ci yooyee crèche bu ñu naan la Cigogne Bleue bu su lundi naka la mbiri yi demee xale bi dañ ko jox mu lekk ba pare gannaaw gi la def benn genre coroxaan tàmbalee wàccu ci la ko kenn kay liggéeyee ci boobee crèche d'après les témoignages tegee ci kawam ba un mois donné mu yaakaar ne xale bi dafay nelaw fekk boobu ñàkk na bakkanam par la suite lañ ko yóbbu ci benn structure sanitaire mais li mata a leeral mooy ba mu fay yegg xale bi yóbbaalewul bakkan loolu benn la ñaareel bi mooy wajuru xale bi nee na liñ ko yéex a woo gannaaw ba mbir yi amee ñetteel bi moy li jottu xew digënté bi ñuy def autopsie bi ak biñuy jëbël xalé bi boromam manam après deewu xalé bi amul enquête bu sérieuse euh, amna naa doute ci résultat autopsie mais dama def rek un constat ci ce qui s'est passé mooy que biñu ñëwé fekk nañu ñom wa crèche ba ñu jaar fa ba am une discussion avec qui euh, fa nekkoon je sais pas ndax médecin bi la wala am déet biñu ñëwé amna am na papier buñu fa jël pour dem photocopier ko biñu ñëwé fekk nañ ñu fay autopsie bi donc interpellé naa médecin bi ci lolu niko lan lañ fi jël mais waxuma lu voilà waxuma dari dem na ba ci biir sax mu ni loolu c'est c'est entre nous ñun ak police bi la et puis la directrice m'a appelé euh, la veille ci ci veille bi bi nga xam moom la ñu waroon def autopsie bi mu mu laaj ma résultat autopsie bi ni ma laaj ma autopsie bi ni ma parce que dafa war a dellu police ak autopsie bi ma ne ko d'accord mais autopsie bi résultat autopsie bi du tey lay génn suba lay génn maintenant Euh, beneen pàcc bi mooy li ñu jaaxal ci mbir yi mooy euh, police deful demul bi bi bi bi directrice bi dem def euh, déclaration de décès bi à la police le jour même je pense que def na ko ci écho yu ñu am def na ko mais police demul ci crèche bi xool lan moo xew police. Hmm, nous ngi def une liggéey hein, enquête en cours je je fais confiance à la police sénégalaise ils font le travail mais dama am ay questions yu me pourquoi la police n'est pas allée fofu rôle dans quelles conditions euh, le le le dans quelles conditions le xale bi parce que dañ ko don jox mu lekk waaw dañ ko don jox mu lekk lan lañ ko jox mu lekk naka lañ ko joxee mu nee def nañu premier secours gardien bi def na premier secours gardien bi est-ce qu'il est amna diplôme pour def premier secours est-ce que le gardien bi moko ray rey xamoo def na ventilation on ne sait pas dafa bëri ay question ñu xamul té lool police bu démon je pense que wala procureur autosaisir dossier bi dina am vraiment lo xamni dina xawa a leer suñu bop donc ñu ko déggandoo mom magudja Dia di wajur bu góor xalé bi mais bu ngeen déggé ni mu démé nim ko expliquer mbiri jullu ñu ko sérieux parce que même bu dul xale bi génn àdduna war nañ def ben enquête ci anam gi tout temps yi di nekkee ci crèche yi mo xam lek bi mo xam yori nuit parce que bu ngeen ko déggee moom Magatou Dia nee gardien wu crèche bi moo doon def premier secours yi gannaaw ba xale bi amé arrêt cardiaque cela veut dire que même dans les crèches amul des personnes compétentes ño xamanteni ni bu dara xewé ci musiba ken ñaanu ko ñoo leen di taxaw bala ambulance di yexi motax ñu né au delà de xale bi nga xamanteni ñak na bakanam war nañu xoolaat crèche ni ñuy fonctionner est-ce que amna ben cahier des charges bo xamanteni nii képp kuy ubi crèche da nga wara a sàmmonteeg yenn critères yi lolu yep war nañ ko poser parce que comme niñ ko waxé ci ben vidéo bi suñu société ñoo ngi adopté benen xeetu dund go xamanteni nii xale bi wolu duñ ko bàyyi ci kër gi ak mindan bi lolu sabab crèche yi bari di juddu di gëna takku ci bi réew mi parce que dëkk bi métti na légui bokku góor gi lamuy xëy di wuti doytul papa da fay xëy yaay da fay xëy dem liggéey changement la bo xamanteni nii mënuñ ci dara légui xale yi fan la leen di yóbbu moy ci crèche yi léegi état moo war a xool naka lay organiser secteur boobu noonu ba képp kuy ubbi bërëb yu ne mel mu am ay critères yoo xamante nii da ko war a saamun teel congé de maternité yi aussi war nañ ko xoolaat ba bépp jigéen buy liggéey ci benn entreprise bu la suñu borom mayee doom nga am largement le temps pour taxaw ko ba mu dëgër bu ko defee ngay soog a tàmbali waat sa liggéey du yomb nag ndax xam naa ni buñ ko defee société yu baree bari dootuñ jël ay jigéen mais rôle état mooy protéger askanam rawatina ñi nga xamante nii ñoo gën a néew kàttan mais li ñu tàmbalee gis Sénégal fan yi xale yëpp ñoo ngi en danger parce que amul benn politique boo xamante nii jagleel nañ ko tuut tànk yi ngir ñu màgg ci jàmm ak salaam donte suñu borom moo yor bakkan mais nañu protéger xale yi mais dañu seetlu que ni Sénégal bu ñu ne politique de l'enfance rek mooy mbiru daara yi alors que am na yenn secteurs yoo xamante ni war nañ ko régulé protéger xale yoo fa nekk mais duñ ko def tey koo dégg muy wax mbiru xale yi automatiquement dafay attaquer daara yi kon lii réflexion la boo xamante ni suñu politique yi suñu gouvernants yi war nañ ci taxaw ngir ñu mën a aar xale yi protéger leen parce que bokk nañ ci ñi gën a néew doole ci dëkk bi te mënuñoo wax ñu dégg leen kon jàngatu tey bi loolu woon ñu ngi leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf